salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ñaan sunu borom di ñu defal jàmm fu ñu mën a nekk sunu xikma bi nag tey day wax ne man yukthiru su'ala anka yuriduka an tas'ala anhu wa man yahtamu bika yuriduka an tahtamma bihi wa man yamnaxuka alxanaana yantaziruhu minka nahnu gaaliban nuqaddimu lil axirina ma naxtaaju ilayhi xakim bi nee na koo gis mu bari lum lay laaj bu sañoon yawit boo ko gisul di ko laaj waaye képp koo xam daf laa jox yitte lool tamit bu sañoon yawit nga jox ko yitte waaye képp ku la mayut ñeewante moom it bëgg na nga ñeewante ko mi koy xaar ci yow ñun daal lu ci ëpp li ñu bëgg ku ñu ko defal rek moom lañuy lebal suñuy moroom xakim bi li mu wax dëgg la nit kum mën a doon boo ko gisee ba ñëpp yéem ko ci ak am yitte noonee lay bëggee it ku ko jox yitte nag donte bu amee xel du ko laaj waaye dana ko bëgg nit koo gis tam fu mu la gisewu daal di lay laaj am ci yow yëg-yëg lool wax dëgg yàlla bu sañoon nga yëg ko te bu yëgee ne sax bërëb sàngam gisoo ko fa te laajoo ko daf koy metti ndax day mel ni kon moo la faale faale woo waaye itam koo xam ne daf laa ñeewante mbir yu bari bu ko yëgee ci yow yëg ñeewante yëg yërmande moom it noonu la doon xaara yow nga di ko ñeewante di ko yërëm eh, xam nga doomu aadama dafa bëgg boppam bëgg boppam ku toll ne lu baax lépp lu mu yëkkati nangu koo jox nit ngir jikkoom yu baax jàppal ne day nekk ku am xel di ko bañ a wax waaye teewul bëgg na ko wala mu ñàkk xel nag di ko wax dangay gis koo xam ne naan yow ni ma la maye yitte teew faale woom wala mu naan yow de wute nga ak man man mi nga xam ne dama laa ñeewante ba dee te faale woo ma wala mu ne nàngam loolu nag moom dëgg la sax euh, xañ na taxatul mu neex ndax bu dee yitte bala la koo nite jox danga koo laaj yërmande bala la koo nite jox danga ko koo laaj su boobaa dootul mele melati nam waroon a mel waaye daal en tout cas nit bu sañoon lu baax lu mu yëkkati jëme ko ci yow ci yëg-yëg ci jikko yow da nga ko yëkkati jëme ko ci moom su la ko waxee nag ak boo ko waxul moo tax sëriñ tubaa mu mën yaram yi daf ñu waxoon ne rek wakun maa naasi jamian dahraka kama tuhibu an yakunu maaka nit ñépp na ngay nekkee ñoom ci wàllu jëflante comme ni nga bëggee ñu nekkee ko ak yow loolu moo leen di may jàmm waaye bu dee dangaa jàpp ne yow kat moomadu nga waaye ñii ñëw ay paate dong lañu man man aajo naa jox yitte waaye ñeneen ñi jarul ma di leen jox yitte man aaju na maa fonk waaye ñeneen jërul ma di leen fonk loolu mooy dangaa jàpp ne yaa nekk ci seen kaw te loolu moom boo ko xasee foog sa daraja ci nit ñi wàcc na ñu ngi sant ñëpp di gërëm di jégalu wasalaamualeykum wa rahmatullah